Nous revoilà dans l'innovation qui nous mène vers la créativité de la télévision. Une magie qui nous fait descendre dans votre fauteuil magique de votre émission tant aimée Célébrité en ligne, qui a l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir une invitée de marque. Qui est cette invitée C'est une jeune leader politique modèle. Par son engagement et sa détermination au sein du Parti démocratique sénégalais. Elle a porté tous les combats du Parti démocratique sénégalaise. Toute sa vie, elle l'a consacrée dans les œuvres de son parti qui est le PDS. Wadis dans son sang, militante depuis 2011, par son ardeur et son ambiguïté mbokki téléspectateurs yi comme ni ma leen ko présenté sama invité egsi na nee naa leen sama fauteuil magique bi képp koo xamante ni am nga loo wax ak askan bi kooku moo fiy dal donc ku ma leen di présenté du kenn ku dul madame Nafissatou Diallo di secretaire national chargé des réseaux sociaux de la communication et du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais madame Nafissatou Diallo dalal ak jàmm ci célébrité en ligne ma bàyyi la nga nuyoog téléspectateur de la 2 Euh, merci beaucoup maa ngi leen di gërëm ci invitation bi di nuyu seen téléspectateurs yëpp ñuy seetaan euh, di nuyu sama leaderu parti sama frère secretaire général national militante yeeg militant yëpp euh, waaye di laaj ax ah, di nuyu Karim wàdd fu mu nekk fële ca Doha waaye di laaj Tange Tandian noo xamee lii nga wax loolu lu ma jaaxal la. xam nga nee naa la c'est la magie de la télévision. <laughs> C'est l'innovation qui nous mène vers la créativité. Tout à fait. Et la créativité nous fait descendre dans cette émission qui s'appelle Célébrité en ligne. Mm. C'est la 2 c'est la télévision autrement. dañuy dugg léegi suñu biir émission xam nga fast track. waaw dégg naa ko de. foo ko déggee. ah xanaa ci régime bi Macky a ak régime am. voilà xam nga président bi mu toogaatee dafa initier slogan bu bees tuddee ko fast track invité ñëpp ci fast track maanaam lépp gaaw Sénégal naat ci biir cinq ans yi lépp lu Sénégal jotul woon ñu jot si mais ñun nag suñu biir émission célébrité en ligne dañu am suñuy question fast track. soo paree rek ñu dem ci. d'accord mën nañu xam sa dernier diplôme. bi nga euh, mujj am. maîtrise culture communication te pareeguma parce que juin bi maa ngi dem def euh, master te parce que dama bëgg def doctorat en communication te bëgg naa itam inscrire itam ci droit ba xam. madame Nafissatou Diallo mën nañu xam foo juddoo. fii ci Ndakaaru ci banlieue dakaar ci Pikine sama kër maam. d'accord mën nañu xam naka nga xamante Karim. Euh, waaw <laughs> ci politique. ci politique ngeen xamante. waaw. mën nañu xam ban lycée nga amee sa bac. lycée Dumont d'Urville bu nekk Caen. Caen ca France. en France oui. Mm. mën nañu xam sa plat préféré lan la. bëgg naa supp kànje bëgg naa ceeb bu weex bu am bëggee ci ak suul. ah li nga bëgg kat neex na. <laughs> madame Nafissatou mën nañu xam depuis l'indépendance à nos jours Sénégal ñaata premier ministre la yée question col ni non à pied levé comme ça bu ma ko mënuma ko jàpp ma ko ma jox la réponse bi am nañu treize premiers ministres de l'indépendance à nos jours j'ai l'impression qu'on en a eu plus treize ci Senghor am nañu ñaar uh-huh. muy Mamadou Dia ak Mamadou Dia Abdou Diouf Abdou Diouf ñu ah am ñaar Mamadou Lamine Loum Ah. ak Habib Thiam. dëgg la ci Ablaye Wade ñu am juróom-benn. waaw. tàmbale ko ci Mame Madior Boye. waaw. teg ci Hadjibou Soumaré. waaw teg ci Idrissa Seck. Uh-huh. teg ci Macky Sall. Uh-huh. teg ci Souleymane Ndéné Ndiaye. dëgg la ci Macky Sall ñi am ñett. Abdoul mbay Mimi Touré ak Mohamed Abdallah Dionne. merci. na fi Nafissatou Diallo mën nañu xam 2011 2020 ñaata oto nga ci am. 2011 euh, ba 2020 benn. Euh, bu bu nekk sama bu ma moomal sama bopp. nekk sama tur nekk ci benn. waaw d'accord waaw te te euh, jaay naa ko yàgg na fu mu ne nii aw ma oto nag ma wax ko. d'accord <laughs> madame Nafissatou Diallo mën nañu xam tey yow sa choix entre éco bi ak CFA bi ban nga ciy choisir. dafay dépendre ban ban ban éco la. léegi benn éco lañ fi wax de. déedéet y' a dafa am ñaari éco projet bu yàgg boo xamante ni CEDEAO moo ko porté. Mhm. boo xam ni c' est un projet de de qui date de plus de vingt ans. Mhm. ñu ciy dem pour ñu am monnaie unitaire. Mhm. CEDEAO boo xamante ni Nigéria da ciy bokk. Ghana da ciy bokk boobu monnaie dootul dépendre par exemple du adossé wu. ci franc franc euh, mais mu am beneen éco bu ñu dégg récemment bu Ouattara ak Macron. boobu moom bëgguma ko. Ah, gënul ci ñun parce que. Euh, pays bu mel ni Nigéria wala Ghana duñ ko nangu parce que duñu nangu adossé seen économie euh, ci euh, monnaie France en fait sur la France. d'accord mhm. madame Diallo mën nañu xam sa tenue bu gën a cher ñaata lay jar. <laughs> boobu moom je passe. da ngay passé. oui madame Diallo mën nañu xam vous êtes mariée ou célibataire. divorcée. divorcée. oui d' accord mu doon suñu première manchette émission du doon suñu question célébrité en ligne amoon mbégte ak bànneex partagé ko ak yow fii suñu biir kër ni ma koy waxee rek célébrité en ligne moom ganu kër gi su ñëwee. foog ñu jox ko benn album photo ñu seetaanandoo ko le temps man may ñëw jamono ji maa ngi nii côté Pikine di ñëw di jël autoroute à péage bi le temps ma lay fekk sama kër mais am na ku ma bàyyi sama kër nee naa ko sama gan su ñëwee rek joxal ma ko album bi ñu commenté ndoo photo madame Diallo soo ñu doon commenté photo bi kañ la woon ban occasion la woon eh, lii permanence la woon il me semble dama waxoon def benn interview wala je sais plus wala réunion c'est à la permanence du PDF ah d'accord nga toogaat di seetaan photo bi ban souvenir la lay jox ah, Euh, voilà daf may dëggal rek ni maa ngi bëgg yàgg ci affaire bi <laughs> ci ah, politique bi. ba tey ñi dem seetaani waat beneen. Ah, tey soo ma doon commenter photo bi loo ma ciy wax. ah mais c'est c'est c'est bien c'est un Idrissa Seck c'est un leader politique. Mm -hmm. Madame Chopin si je, je ne sais pas actuellement. ci lu mu nekk mais je pense qu'elle est euh, elle a un mouvement de soutien à Karim Wade waaw xam nga madame Chopin bañ koy xam dañ ko xamoon ci ay combat Karim mhm. yow tey ñi xam la ci combat Karim tey ñu gis ko ci wetu Idrissa Seck nii yow mhm. ban pressentiment ngay am politiquement non politiquement man du ma ci ñaa du ma ci ñaaw njott peut-être au début bu may door politique bu ma gisee yenn image yi dinaa tikke mhm. mais léegi nag dafa dama tàmm loo xamante ne lu ma amul lu ma leer mhm. wala moo mu doon loo xam ne mën naa ci dut sama baaxam du ma du ci mun a wax parce que politicien yi dañuy daje ailleurs ils prennent des photos des selfies mhm. munu ko ko xaw ma lu ci biir en tout cas mais euh, bon ñaawuma njott daal xaw ma lu ci biir d'accord ba tey sama complice ñu xooliwaat yeneen photo ci album bi kii <laughs> sama frère la Bara euh, bu muy secrétaire général national adjoint bu parti démocratique sénégalais ax man fii kër président la woon euh, yàggul torop photo bi dafa ay audience yu ñu doon am yu président doon am ñu nekkoon fa. ah d'accord muy sa frère de parti. ah oui sama frère la sama la 2000 2011 euh, décembre 2011 PDS c'était pas facile parce que xam nga boo soogee ñëw ñu bëree dañuy combat politique ci parti yi yombul moom dafa mës a bokk ci ñu taxaw ne euh, vraiment il m'a toujours soutenu quand je suis arrivée au PDS honnêtement ñu koy nuyu de passage mm. suñu frère Bara Gaye di maire yëmbal foofu ba tey sama complice nañu ànd seetaani waat beneen image ñu xool la ñuy wax mm-hmm. Abdoulaye Wade et Macky Sall mooy rencontre bu ñu defoon bu ñu amoon palais bi Macky Sall invité le président bu président Macky Sall invité président Abdoulaye Wade au palais tey soo may commentaireel photo bi tey loo may wax. Euh, mooy normalité républicaine li amoon avant mooy anormalité républicaine parce que ñun dañu tàmm di gis yeneen réew yoo xamante ni ñun ñoo leen rawoon ci démocratie ñun ñoo leen rawoon également ci lu rafet parce que xam nga Sénégal dafa am particularité mhm. euh, maanaam ñun lu ñu contranté contranté dañuy tase Touba dañuy tase Tiwaawoon dañuy tase ca Dàkka ba donc dafa am loo xam ne daf ñu lié malgré tout mhm. donc mu amoon benn rupture euh, républicaine boo xamante ni lii dafa ñëw instauré waat normalité républicaine parce que man dama yàggoon di partager même sama page Facebook mhm. ay photo président Ghana ñoom ñëpp ñu ànd wala Nigéria ñoom ñëpp ñu ànd ma doon wax lii mooy normalité loolu dañ ko war a mun a offrir au peuple sénégalais xalif bi nag par l'entregent ak mbaaxu xalif général de Mourides lii sénégalais yi mën a am image bi. ba tey madame Diallo ñu ngi jàkkaarloog beneen image bi soo ñu doon commentaire image bi ban occasion la woon ak lu xewoon. Euh, bii moom dama doon samedi dernier la dama doon jot euh, benn euh, prix bu tudd prix ràññee management politique ma ànd ak sama yaay Woré Sarr ak ñoom Bara ñoom ñëpp ñu ànd ak parti bi bancaas yi secrétaire général u FNCL Saliou Dieng chargé des structures ak karimistes ñun ñëpp ñu ànd ak yeneen membre PDS pour dem parce que pour man prix bi Euh, prix wu PDS la prix wu Ablaye Wade la prix wu Karim Wade la sama yaay waree saa gunge ma vraiment taxawu comme ku amee ku comme yaay nu muy taxawoo doomam ax ñeneen ñëpp sama frère euh, de parti yëpp man leen solidarité bi ñuy bi ñuy wax fraternité bu ñuy wax wane nañ ko jour boobu ñi la ciy félicité di la ci ñaanal mu jég la ñaan yeneen prix fekk ci la ci donc mu doon suñu photo yi ma bàyyi woon sama kër jamono ji xam naa ni léegi ma egg si 2STV yi mhm. mais madame Diallo dama am benn surprise pour yow d'accord dafa am ku ñu demoon seeti ji waaw am yu mu teg ci yow ñu seetaan surprise bi dellu si waat d'accord secrétaire national chargé des réseaux sociaux et de la communication du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. Jeune leader politique, modèle d'engagement et de détermination qui a été de tous les combats au PDS depuis qu'elle y a adhéré en décembre 2011, est un modèle de militante. En outre, de tout temps, elle a toujours voté pour que j'accède à la magistrature suprême. Elle me dit souvent qu'elle est wadiste, créant l'ambiguïté, car j'en doute fort, vu son engagement aux côtés de Karim. L'essentiel, c'est qu'elle milite avec ardeur au PDS

que le prix Ranier du management politique édition 2020 lui soit décerné. madame Nafissatou Diallo mu doon noonu ay témoignages yoo xamante ni dañ ko jëli woon ci koo xamante ni nekkoon na fii njiitu réew fii ci senegal muy suñu papa di suñu maam Abdoulaye Wade nit ñi bëgg ko lool mu sax lool ci seen xol tey ba nga dégloo témoignage bi ban commentaire ngay def. waaw euh, Tange Abdou euh, président Abdoulaye Wade man aw ma fayam euh, xaw ma lan laa ko war a wax lu dul rekk gën a sax gën a jàpp gën a transcender les épreuves parce que politique yombul boo dee jigéen yombul xam ñëpp xam nañ ni parti politique yi di ci biir yëpp dafa metti moom nag da lu dul gën a daf ma gën a saxal daf ma gën a may doole pour ma taxaw Euh, gën ma saxal ci loyauté parce que dama gëm ni loyauté mooy nit euh, dafa di loo xamante ni man jooy dafa jooylu dafa jooylu may réitérer fii Tange sama loyauté ci moom may wax ni bu ma dem moom bu doon sax dans l'au-delà ñuy neen tànn leen leader politique tànnaat moom laay tànnaat Karim Wade laay tànnaat donc euh, muy kàddu yoo xamante ni c'est très émouvant mënuma ko sax commenter parce que c'est très très émouvant et c'est très fort pour moi euh, voilà léegi xanaa gën a góorgóorlu gën a jàpp gën a taxaw euh, bu waxee dese benn militant man lay doon yaakaar naa ni kàddu góor dëgg moo fa jiit su naree desee benn militant man lay doon mu doonoon suñu papa di suñu maam Abdoulaye Wade ñu koy safoo di ko tiitaroo di ko ñaanal yàlla may ko wér yokk kattan ji yokk xéwal ji ndaxte li mu liggéey ci Sénégal ba tey jii mi ngi fii loolu la ñuy def ba tey madame Nafissatou Diallo xam nga nag ñun suñu kër dafa am fàttaliku muy souvenir mhm. te ku fi ñëw foog ñu am loo xamante ne dañ koy seetaanandoo le temps après ñu commenté ko te souvenir bi nag yow yaa koy tànn d'accord fi nga toog noonu am na ay pañe yi fa nekk mhm. à ta droite muy sa loxo ndeyjoor mhm. jëlal pañe bi fa nekk ndeyjoor waaw mooy à ta droite à ma droite mel déggoo ok léegi yëngalal am nay vidéo souvenir yu bëri yu fa nekk am na ñu Papa Wemba am nañu Youssou Ndour am nañu Ndiaga Mbaye am na ñu et Cheikh am ñu Yoro Ndiaye. yàlla naa tombé ci Pape et Cheikh. voilà léegi boo ci tànn rek moom la ñuy seetaanandoo. ma ubbi. yow yaay ubbi wan ko caméra bi ñu liir ñu tegal ñu vidéo bi ñu seetaan ko. <laughs> c'est ce que je voulais en fait. muy lan. mi ngi nii. Pape et Cheikh ñu kon ñu àndandoo seetaandoo suñu vidéo souvenir dellu si suñu plateau. gëm dina gën a baax ñu naqari dañ la gisutoon bi la yàlla andee féexal nga réew mi xéwal a ngi nii naataange ngi nii ak góor gi njëriñu boo xamoon Sénégal fi mu jaar ba yegg si fii tey war nga gëm ne ñun gi dañuy ci ngoy kon mu doonoon suñu vidéo souvenir ñi ànd soon nag le groupe folk Pape et ñu woyoon fi woy bi ay jamono defoon fii bës bu mag a mag tey kan moo ko tànn muy suñu eh. invité madame Nafissatou jàll ba nga seetaanee vidéo bi ban commentaire nga ciy def euh, lii mooy way bu dul fay mm, du fay mukk parce que Pape et Cheikh génie bi ñu am ci way bi mooy ñëwuñu ñu taxaw ne ko ndiku coro saar ba fu coro saar baayu Karim ak si njéeli dañu wax ay réalisation yu mu def def way boo xamante ni Euh, ku ko dégg xam ni dëgg la way boo xamante ni c'est des faits des éléments factuels en fait donc kenn mënu ko dindi moo tax way bi mënul fay euh, PDS nag ñun lii mooy suñu suñu suñu way suñu cri de guerre su boo xamante ni lépp fu ñuy dem bu ñuy dem tournée sax moom la ñuy teg euh, di ñaanal Pape Cheikh yàlla yokk seen fan en espérant que xëy na dina am yeneen collaboration peut-être avec Karim Wade en en tout cas loolu laay ñaan parce que gëm naa ni vraiment c'est les meilleurs pour moi en tout cas au niveau de la folk ils font partie des meilleurs euh, ma leen ñaanal loolu ñu ñu li ñu nekk yàlla gën leen ci may ndam. kon ñoo ko déggandoo commentaire yooyu la def ci vidéo souvenir boo xamante ni le groupe Pape et Cheikh ñoo ko fi doon muy groupe folk bi da ginnaaw bi ñu jógee suñu fast track seetaan suñu album dem suñu vidéo souvenir. léegi nag madame Nafissatou Diallo dañuy dugg ci cappaandaw ga muy le vif du sujet. Mhm. moo tax tey nga toog ci fauteuil bi. parce que nee naa ne képp koo xamante ni am nga loo waxtaan ak askan bi ret suñu fauteuil magique bi am nga fi place te tey gis naa ni fi jamono toll fi politique bi toll fi actualité toll tey soxla nañu koo xamante ni ku mel ni yow tey pour waxtaan ak askan bi suñu première question su dee pare nga. Mhm. ñëpp xam nañu fi ñu toll nii problème mu dialogue bi moo posé wu problème. Mhm. par rapport au dialogue. Mhm. est-ce tey raison la PDS bañ participer ci dialogue bi ndaxte diggante Macky Sall ak papam Ablaye Wade di taxul te loo xamante ni intérêt Sénégal la. waaw euh, gëw ma ni euh, diggante bu ñàkk rattax la parce que tey jii même bu ñu doon dem ci dialogue euh, du Ablaye Wade mooy dem PDS mooy dem 2016 PDS demoon na ci dialogue. waaye dañu gis ni lay génnoon ci dialogue boobu yëpp dara amul amul suite waxoon nañ fi sax ba wax dañuy instaurer euh, journée dialogue muy benn loolu gisuñu ko deuxième chose mooy euh, ñun euh, waxoon nañ ko ci à travers des communiqués depuis les législatives de 2017 ne dootuñu bokkati euh, duñu ci ci lu waxtaan wala duñu bokkati ci dara loo xamante ni tant que euh, ñetti condition réunir wuñ ko maanaam ñu def waxatuñu sax waxu audit wala taux euh, du fichier dañu ni ñu xoolaat fichier bi maanaam refonte sax mën na ne parce que nit ñi jotuñu seen carte d'identité maanaam bu ñu demee élection ak condition yi c'est une non élection ñu daal di ne ni que tant que libéré wuñu xalifa Sall ñu wax également tant que appliqué wuñu décision à l'époque groupe de travail la woon tey ñu ni ñu bi ñu defaatee communiqué di ci wax ñu ni commité des droits de l'homme des Nations Unies li mu mujj wax euh, maanaam ñu xoolaat procès Karim Wade ñu looloo tax itam te ñu gëm ni nguur bu dem élection gagné à 58 pour cent taxaw ne moom itam day woote waat dialogue euh, man gisuma sincérité ak pertinence u dialogue boobu donc ñun on a di a très clairement conditions yi ñu posé woon depuis toujours te looloo mës a am ndax PDS musul bañ dialogue mais dialogue bi dafay sincère te dialogue yi dañuy poser des problèmes yoo xamante ni day intéresser l'ensemble de Sénégalais xam nga damay dégg sax ay nit naan politiciens yi waxu élection rek la ñuy wax waaw xam nga lu tax mu am solo waxu élection am solo parce que tey ji Sénégal euh, jàmm gi ñu am élection yu jaar yoon moo ñu ko am ñëpp gis nañ ni même avant deux euh, avant 2000 ni da doon tàng torop torop réew mi da doon tàng torop bu élection di waaj a ñëw euh, dañu doon jàpp nit ñi tëj kaso et bu ñu demee ba am nag une alternance démocratique saluée à travers le monde 2000 2007 euh, ñu amaat élection yu baax 2012 ñu amaat élection yoo xam ne kenn contesté wu ko lu lu élire euh, ñaari président dàq ñaari président dara nekku ci donc dafa war a doon loo xamante ni day doon lu dëggu ba pare également on les conditions qu'on pose Euh, itam nit ki boo jiitee foog naa da ngay lâcher du lest ndax Ablaye Wade bu mu nekkee ci nguur bi euh, opposition bi tey nekk ànd ak Macky Sall au sein Benno Bokk Yaakaar dañ daan poser ay condition mu leen koy nangu. d' accord madame loolu mooy yoon. d' accord mën nañ la admettre loolu. Mm-hmm. mais dañu gis ni tey yéen au sein de PDS li ngeen di reprocher Omar Sarr mu dem rencontrer Wade tey. Wade mu dem rencontrer Macky tey Wade dem na rencontrer Macky sur ndigal di xalif général. Mm-hmm. est ce que du lu ngeen doon reprocher Omar Sarr na ko. du benn. xam nga lan la grande différence fenn la PDS dafa di parti boo xamante ni dafa am charte. charte yi mooy dañu am congrès boo xamante ni dafa élire secretaire général national di réélire ko mu am ay texte ak règlement. Euh, numéro 2 wu PDS kenn voteelu ko du vote du congrès Ablaye Wade mooy xool ci ku ko neex ndax texte yee ko ko may mu nommé la. mais dangay assister le président Abdoulaye Wade c'est lui qui prend les décisions parce que c'est c'est lui seul qui peut engager le parti suñu ay statut et règlement ñoo ko wax donc bu ab Abdoulaye Wade waxee ni ñun man d'accord ma pour nga dem ci dialogue bi pour x raisons expliquer les raisons euh, je pense que itam euh, nit ki war na mun a éviter dem loolu wala jàmbaarloo boobu wala jël ab Ablaye Wade bëgg wàcce kàddu Ablaye Wade pour yëkkati kàddu keneen koo xamante ni foog naa ni fi ñu fi ñu jaar ñoom ñaar euh, xawoon na metti période boobu muy benn ñaar ab laay Wade bu demee gis Macky Sall Ablaye Wade est un ancien président ma bëgg rappeler rek toujours dama koy faral di wax ni que xalif général de Mourides dañu doon moom moo sàkku lii moo ko bëgg ndax li euh, euh, ñuy def Massalikul Jinaan di ko inauguré ñëpp gis nañ délégation bu am doole bu xalif général de des Mourides yónnee Abdoulaye Wade mu ni ko yow yëf bi doo ci doo ci gan eh, yow yaay yow yow yow yaay invité waate donc foog nga ñëw Ablaye Wade musul nëbb ba ma mu nekkee ci nguur ni moom murit la te itam euh, mu mu dëgg ci moom mu ne ko ndigal la dinaa ñëw ba mu ñëwee xalif général de mourides waree fam la def waree fam mooy gis ñaari jullit yoo xamante ni du ñu wax ñaari jullit yoo xam ni relation yu yàqu la mu toog jubale leen ba pare pour bien wu Sénégal ay kàddoom a ngi ci YouTube ñëpp mën nañ ko dem xool foofu euh, bi mu jógee ñoom ñaar toog nañ ñu ànd génn téyante loxo jour boobu dégg nga ni Sénégal yuuxu clameur boobu kenn mësu ko gis Macky sàll daal di bàyyiloo lay wàdd otoom yóbbu ko ba këram ba pare ne ko dama la bëgg invité pale euh, pour ñu continuer li xalif bi wax maanaam continuer rendre euh, fiers les Sénégalais euh, donc man maa lay invité palais jox la tous les honneurs ba muy dem pale man foog naa bokkoon naa ci ñu ko gunge donc mu defal ko honneur yoo xamante ni président lañ koy faral di defal donc loolu la Ablaye Wade est un ancien président de la République qui a été euh, euh, invité par l'actuel président looloo tax d'ailleurs bi ñuy dem foofu gisoo fa Euh, les les les le secrétaire général adjoint les secrétaires généraux adjoints gisoo fa maire wore wore sa ñun ñi amee communication bi muy Mayoro Faye ak man parce que bien entendu s'il y a un communiqué conjoint Euh, du Ablaye Wade xanaa mooy toog bind ko wala du Macky Sall mooy toog bind ko donc dafa wax a ànd ak équipe am ak cabinet am looloo tax euh, donc du woon rencontre APR PDS. non d' accord naa d' accord donc bokkul bokkul on pa pas comparer la république et comparer la politique les parti politiques. d' naa ci loolu mais tey dialogue bi intérêt Sénégal la. Mhm. tey ñagas ñagas warul am ci diggante ñaari ba tax ni PDS parti bañ ci bañ ci bokk. mais du ñagas-ñagas moo tax bokkuñu ci 2016 a gënoon metti boobu wax ñu ne ñu nag Macky Sall wax sax amu ci Karim a ngi ca kaso ba mhm. boo booboo gënoon metti du foofu et puis Euh, ça dépend li ngay wax intérêt Sénégal man lii ma gis ñu wax gisuma ci intérêt Sénégal personnellement xam nga loolu dafa aléatoire. ah d'accord parce que gisoo ci intérêt Sénégal loolu man c'est personnel gisuma ci intérêt Sénégal. d'accord dialogue euh, politique dafa am dialogue national am. man ba léegi gisuma fi. Euh, ponk bu ñu yëkkati boo xamante ni mën na intéresser sénégalais yi ba pare ma bëgg wax ni itam euh, lenn am na tey jii Macky Sall dafa d'accord ak opposition ba pare ba ñu demee ci dialogue bi defaat na leen coup politique la ñu waxoon rek sincérité bu amul ñëw buuree la dialogue politique des gens yoo xamante ni dégg nga ko ñoom opposition bi di xuloo ne ñii ñëpp xamuñu woon ni dañuy ñëw xam nga lu tax loolu. Mm-hmm. bu dara waree jàll. day am majorité mécanique au sein de, de des concertations yooyu yëpp ñun on le savait parce que nag Ablaye Wade du koo xamante ni kenn mën na ko ci nax ci politique d' accord loolu moom xam nañ ko mais tey Nafissatou ku la xam-xam na ni fervente karimiste nga où se trouve actuellement jamono ji ñuy wax ana Karim Wade fu mu nekk waaw man wadiste la léegi <laughs> wadiste la man Ablaye la mais mais ana Karim fu mu nekk actuellement mi ngi dowa ngi dowa waaw mi ngi dowa d' accord waaw mi ngi dowa mi ngi ci jàmm voilà Euh, waaye bu ñib ñëw Sénégal loolu la ñu bëgg ñu defaat procès wam parce que dañ ko déporté d'accord léegi lu tax souvent ngeen di annoncé retour Karim Wade ci veille élection bi dégg nañ ngeen annoncé ko surtout ci réseaux sociaux yi mhm. yow yaa yor communication foofu te mosuñu gis Karim Wade pourquoi ngeen di annoncé retouram te duñ ko gis lan moo ko tere ñëw parce que gis nga euh, période bi ñuy bi ñuy wax ni Karim dafa war a ñëw waaw Euh, donc loolu lu ñu gëmoon loo xam ne dafa waroon nekk waaye bi ñu gisee ni ñun mënuñoo bokk ci élection yi mhm. ci la ñu wax ni man man de bokk naa ci ñu ne Karim Wade amoo loo fiy def demuñu élection jagul ngay ñëw ñuy jàmbarloo di xeex parce que bu ñëwee Karim wàdd itam bu ñëwee buñ ko naroon jàpp ci condition yoo xam ne dafa nekk candidat day doon loo xam ne day metti ci ci Sénégal mais comme dindi nañ ko bokkul euh, opposition bi ñu àndaloon ñun au sein du c cinq ñu ànd signé euh, benn déclaration daal di ne ñun ñëpp dañuy solidaire des candidats Karim wàdd yu ñu recalé des candidats Khalifa Sall ak tous les recalés du parrainage ñun ñëpp dañuy solidaire pour wax ni loolu du fi am tant que ñu bokkuñu élection duñu am ñun amuñu ci ñu d'accord ci loolu dans le cadre de concertation xam nga ñun ñu ci am dañu xëy suba benn samedi gis ku nekk euh, dem dem campagne waxatoo ci loolu dara donc ñun am nañ ci droit bu boobaa et également toog xool nu ñuy defaraate suñu parti lijjanti leneen Euh, pour revenir un peu plus fort. mais madame Nafissatou. Mm -hmm. que tey yéen engagement politique bi ngeen am. Mhm. ci Karim Wade Karim Wade am na ko pour Sénégal. lu ko raw ndaxte su ko amoon lu tax du ñëw Sénégal taxaw xeex. waaw euh, xam ngeen yéen yëf bi euh, dafa xaw a yomb. parce que euh, man su nit ñi di wax damay fàtte damay dafa mel ni Sénégal dañuy fàtte histoire ndax Karim Wade dafa nekkoon prison. Mhm. Barthélémy Dias bërki démb bañ ko génnee xaaja guddi lañ ko génne dañ ko ni ci biti mës nga gis yow prisonnier. ci ci ci Sénégal gi wala ci àdduna boo xamante ni dañ lay libéré génne la xaajo guddi euh, teg 7 7 L200 mu am police nationale euh, aéroport kenn avion du yéeg avion du wàcc benn avion di la xaar ñu dugal la ci oto bi euh, daa di couper internet sur l'ensemble du territoire sénégalais dugal la ci avion c'est de l'exil c'est de l'exil et de la déportation comme nu mu amee au Zaïre avec bi comme nu mu amee avec Patrice Talon mais mi génnoon réew mi tey nekk président Bénin comme niñ ko defee woon également Alassane Ouattara wala def ko tey Guillaume Toro euh, loolu la léegi Karim nag bu xeex na à l'international gagné na partout euh, ba bi mujj muy comité des droits de l'homme Sénégal jël engagement ni que dina respecter sa signature international il ma semble que le communiqué avait été fait par Ismaïla Madior Fall ba tey ñun ñu ngi ci loolu Karim wadd bu ñëwee nag man bokkuma ci ñu gëm ni Karim dafa war a ñëw di aw ci ay euh, gannaaw otoog di dugg frauduleusement Karim bés buy ñëw Sénégal aéroport bi lay wàcc ñu dem accueillir ko mais nag di dugg frauduleusement parce que déportation lañ ko def ku xam histoire politique xam dara xam ni ni que ci réew Afrique yi bëre na déportation yoo xamante ni am na ci ay euh, opposant politique ñun Sénégal nag xamuñu ko woon moo tax yëf bi xëy na mun ñu jaaxal mais Karim wàdd bu doon sagom day nekk fii euh, janoog ñun te tôt ou tard ça faire parce que on peut pas continuer le dilatoire mënuñu continuer tey ndax ku retourner avion Ablaye Wade ancien président de la République tere ko atterrir fii ci Sénégal ba mu dem fanaani Maroc kooku gaw ma ni Karim Wade euh, boo buggul mu dugg ci dëkk bi du dugg ci dëkk bi léegi nag ñun c'est à nous au PDS organiser maanaam tey ji ñu dem defaraat fédération par fédération commune par commune section par section ba nga xamante ni day doon force de frappe boo xamante ni bés bu Karim ne day ñëw kenn du sañ di delloo avion wam wala di ko dëpp tey madame Nafissatou est-ce que gisoo ni cas Karim Wade mooy problème bu nekk ci diggante Wade ak Macky Sall tey yéen lan ngeen bëgg au juste. li ñu bëgg rek mooy ñu appliquer droit le Sénégal dafa am constitution hmm. euh, bon dafa ratifier des chartes internationales mu nekk suñu préambule de la constitution euh, le Sénégal ne peut pas vivre en autarcie hmm. maanaam. ñëwul bu demee signé yoo xamante ni euh, daf ci war a bokk bokk ci ñooñu ba pare bu buñ leen ne ñooñu euh, dalee si kaw Sénégal ne ko appliquer sa signature internationale parce que mi ngi ci sa constitution ñooñu ne suñu arrangé wul duñ ko appliquer y a des lois au Sénégal et qui sont la loi supérieure c'est la charte fondamentale la constitution li ñu bëgg mooy li comité des droits de l'homme des Nations Unies wax ba Ismaïla Madior Fall boobu nekk ministre de la justice tontu ne Sénégal dina respecter signature internationale am dina def euh, donc recommandation du comité des droits de l'homme nañ ko def jàmm na ñooy ñun bëgguñu amnistie bëgguñu leneen li ñu bëgg mooy ñu respecter rek suñu ay droits maanaam non victoire à ici et à l'international d'accord tey est-ce que mën nañu xaar PDS ci prochain élection législative yi ak euh, municipales yi waaw parce que gisoon nga commune je sais pas si jot ngeen si bindoon nañ y bien longtemps y a euh, cinq mois bindoon nañ communiqué bu leer ba wax ni ñuy demee élection que nous allons Euh, peut-être que terewuñu alliance mais daal li gën mooy PDS moom bu boobaa mooy jiite liste yi def nañ ci communiqué boo xamante ni yàggul woon euh, torop ça doit faire trois ou quatre mois. d'accord mm. tey madame Nafissatou Diallo dama bëggoon nga jox ma sa point de vue. Mm-hmm. sur la nomination du maire de Dakar par décret bi ñu annoncé temps yi waaw loolu moom man mënuma ci benn démocrate mu ñu ci nangu c'est pas possible euh, donc wax naa ko fépp man gëm naa ni ni que mën naa d'accord sax ñu évoquer statut spécial. Euh, te loolu dañuy xool contenu bi mais quand même euh, une ville comme Dakar euh, ñu bëgg nommer le maire man Dakar de la milité à la Médina Gibraltar la dëkk mais man du ma nangu ñu may nommer sama maire le le maire dañ ko war a élire au suffrage comme niñ ko tàmm defee wala ñu xool beneen suffrage bu ñu ko élire mais il n'est pas question qu'on nomme un maire parce que bu ñu paree ci loolu fan la ñu jëm fan la ñu jëm on vote depuis 1881 ou 1884 à Dakar Donc on ne peut pas aujourd'hui se lever pour des combats politiques euh, di nommer un, maire de la République je pense que chantier yi gën a important tey moo war a nekk ñu xool nu ñuy defee territorialisation bu fort boo xamante ni euh, terroir yëpp dinañ mun a am des maires yoo xamante ni ils sont de, de du, du maire de Dakar ndax fii la lu bëri gën a concentré wu donc maire bi c'est vrai dina am benn doole boo xamante ni xëy na bu bu àndul ak pouvoir te pouvoir bi ñemewul torop mën na ko ragal mais il n'est pas question ça c'est quelque chose recul démocratique ak précédent bu dangereux la d'accord balaa mooy dugg ci beneen question bi damay naan sama complice bi mu dugalal ma benn vidéo ñu seetaan déclaration président Macky Sall bi après ñu ñëw dugg ci question bi ci kàllaama nasaraan wala boog kàllaama tubaab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 madame Diallo seetaan nañu video bi muy ay propos yoo xamante ni le président Macky Sall moo ko tenir mooy bi mu naan ñu amul palte amuñu place ñooy toog lépp lu mu wax ñu koy dénigrer ñi gis ni ko moom moo fi woon day créer cinq cent mille emplois mm. après sept ans moom ci boppam mu constaté ni que ba tey ji am na ay chômeurs tey ban analyse ngay def ci propos yooyu président Macky Sall lancé waaw man je l'ai toujours dit ku may suivre ci réseaux sociaux yi ak ci plateau yi J'ai toujours dit, euh, le président Macky Sall na changé ses conseillers en communication. parce que y a des choses yoo xam ne mënoo nekk président de la république non seulement yaa ngi xas sa population euh, yow yaa ngi taxawaay am sax taxawaayu yàlla parce que yow ko <laughs> yàlla euh, yàlla rek lañ dul critiquer fii amul ku ñu dul critiquer mais yow su fekkoon def nga ne li la war comme ni mu ko waxee 500000 emplois wala lu ko raw chômage bi dina wàññeeku. man de chômeur laa bokk naa ci chômeur yi te dinaa ko gën a critiquer te su ma bokkee ci chômeur yi mes affaires marchaient très bien ci nguuru Ablaye Wade doxatul nag ci nguuram bokk naa ci chômeur yi te du ma jug suba ba guddi tànkam mi ngi def loo xamante ni du dëgg du yoon di dinañ ko wax bale passé ay oisif errant lu nekk ñu wax ko amul amul droit aussi parce que man j'ai remarqué une chose au Sénégal on a tendance à penser que le président de la République est un ñun ñoo koy fay suñu ay impôts ñoo koy fay ñoo koy entretenir je suis désolé c'est lui qui est notre serviteur donc il n'a pas aujourd'hui à nous insulter ñun ñoo ko war a wax lu ñu naqadi mu mën ñoo déglu et def communication boo xam ne à défaut même nga réaliser li nga war a def créer des emplois mais au moins nga mun a wax ak sénégalais yi avec sincérité wax leen peut-être marasme économique bi dafa am peut-être ba trouver des excuses au moins baril pétrole bi lu mu yokk xëy na wala wax des raisons yoo xam ne nit ki mën na ko dégg ba nga xamante ni sax dina ni même bu fekkee ni que politique am baaxul même bu fekkee ni ki au moins jox nañu respect wax ak ñun avec le plus grand respect il faut respecter le peuple parce que seul le peuple est souverain d' accord loolu la commenté ci vidéo bi muy propos yooyu président Macky Sall joxoon fi tey madame Nafissatou Diallo soo ma doon jox sa avis sur un troisième mandat pour le président Macky Sall loo may wax. man dama gëm ni daf koy daf koy def dama ko gëm daf koy dina ko essayer bon loolu laa gëm personnellement euh, léegi nag man bokkuma ci ñoo xamante ni euh, principe il faut limiter les mandats parce que xam nga man bëgguma tey ma wax lii tey te démb maa ngi wax leneen au gré du vent nit ki daal boo amee sa ay convictions principes si ben euh, concept il faut les garder moi je fais partie de ceux qui disaient du temps du président Abdoulaye Wade que man ça me choque qu'en Afrique on veut forcément limiter les mandats parce que pour moi il faut laisser le peuple mu tànn lu mu ko neex parce que Allemagne ñi ngi élire éliraat mais kenn waxu ko kenn waxul ni ni que en Afrique euh, en Allemagne c'est c'est c'est c'est antidémocratique wala euh, nit ñi dañuy perdurer au pouvoir et cetera donc man bokkuma ci ñu mën a boobu avec le M23 avec les assises nationales et cetera donc euh, musuma ko kii waaye ñi ko mëne woon tey muy ñoom Macky Sall ba toog ci pouvoir ngal la nañ am ngor xalaat Mamadou Diop mi fi jóge woon xalaat ba ñuy taxaw ci grille assemblée nationale xalaat marché yu ñu doon def di paralyser di toj baawu nit ñeeg jaay marchand ambulant xalaat policier bi ñu toj boppam ci manifestation Fodé te xam ni yooyu yëpp ñu doon wax moo tax tey ñu toog fi waaye xam nañ ni bu dee bilan dong ab Ablaye wadd kenn mënu koo daan donc nañ gore euh, jël seen engagement respecté ko. d'accord madame Nafissatou Diallo. Mm. tey admettons que Macky Sall bëgg a def beneen troisième mandat. lan mooy doon différence bi entre Macky ak Wade bi ko bëggoon def en 2012 alors que bouclé woon nañu constitution bi. non xam nga euh, la différence entre les deux mooy Macky Sall dafa def campagne ci loolu Abdoulaye Wade. Euh, il faut rappeler que constitution bi ba tey ba tey gis nga ay ñoo xamante ni bokkoon nañ M euh, M23 xeexoon nañ ko mais neen nañ la constitution lui permettait en fait, de faire un troisième mandat. Parce qu'Abdoulaye Wade a été euh, élu sous l'égide de la Constitution de 63. Ce qui fait que donc, son premier mandat ne compte pas. C'est ma conviction jusqu'à aujourd'hui et c'est la conviction de nombreux juristes. am na ñu nekk politicien tey euh, Macky nekkoon ci Macky Sall génn ci ne bu ñu deful woon loolu Abdoulaye Wade yàlla def ko may daal sénégalais yi bëgg nañ ko loolu du fi jóge donc man euh, bokul bo les deux bokkul jëlul engagement ferme combattrul kenn ndax Abdou Diouf parce que dafa def euh, euh, quatre mandats xaw ma trois mandats il l'a jamais fait donc tey jii ki combat mené tout son combat et son discours autour de cela autour des institutions autour euh, des assises enfin de ce que les assises nationales disaient nga ñëw taxaw jël assises nationales yi sànni fële woowaat le monsieur Mbow ne ko mu defal la ay études dans le même sens mooy CNRA suñu 700 millions dem ci ba léegi nga ne mi ngi ci tiroir bi jël ay engagement fii man à l'époque bi ñuy campagne en 2012 dama leen ni kii mooy Macky signature li muy wax yépp dara du ko ci def te effectivement le temps m'a donné raison parce que parce que la différence Tange Tandian foofu la nekk ci ku nekk li nga li nga xeex pour accéder au pouvoir ak lan nga gëmloo Sénégalais yi ndax engagement yooyu respecté nga d'accord sa réponse la tey mën nañu xam euh, madame Diallo kan mooy gérer réellement le Parti démocratique sénégalais le secrétaire général national et l'équipe qui avec laquelle il travaille avec son. Quand secrétaire, secrétaire général national bi Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade d'accord. Mhm. À quand votre prochain congrès. loolu nag ñi ngi ci ñi ngi ciy xalaat parce que avant congrès il faut vendre des cartes. Mhm. te comme ñi ngi ciy réfléchir parce que dañoo bëgg def carte yoo xamante ni euh, dafa unique day noonu numérisé nga xam ni kenn mënatul nag taxaw jënd sa ay nombre de cartes rek ñëw ne dugal sa armoire am naa tant de militants carte bu nekk day day day numérisé am puce. Euh, ba pare dañuy mën a xam ne diw personne mooy tel fii la dëkk elle existe vraiment je sais pas si tu comprends ce que je veux dire du doon comme carte yi parti yi di jaay bii pas day doon des cartes numérisées ñu def tournée placer l'ensemble des cartes bu ñu placer l'ensemble des cartes yi ñu monter fédération yi bu ñu monter fédération yi ba pare convoquer leen pour un congrès c'est un travail de longue haleine ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax euh, Madame Diallo gis nañu temps yi arrêté Ousmane Ngom mm-hmm. ñu ngi koy wax ci dëkk bi en 2011 lañ ko voté woon tey lan mooy différence entre Wade encore ak Macky qui l'applique aujourd'hui est-ce que yéen tey duggu leen ci seen propre piège mhm. euh, waaw arrêté Ousmane Ngom déjà c'est pas un vote c'est un arrêté ministériel Euh, qui a été pris lors des émeutes entre euh, le 23 juin d'après 23 juin parce qu'ils avaient décidé euh, donc ni que chaque semaine dañ doon marche donc li indi woon arrêté bi euh, de à l'époque c'était des marches régulières et des casses parce que ñëpp fekkee nañ ko des pillages di toj ay euh, voilà di toj ay magasin di taal fii tout le monde était là les images sont là euh, loolu yàggul histoire bu récente la léegi euh, benn moment au niveau du cœur de Dakar parce que il faut retenir que à chaque fois que y a des marches continues au niveau euh, de du centre névralgique qui est Dakar euh, en perte il a été calculé que c'est plusieurs centaines de milliards par an par an s'il y a des casses parce que su amee casse ñëppay ñëppay tëj fermer les les les magasins et l'administration et tant bien même et tant bien même malgré qu'il y avait l'arrêté Ousmane Ngom combien de fois ici les gens ont marché euh, dont feu Sidi Lamine Niass euh, nit ñi dañ doon marché ñëw ba buntu palais Ablaye Wade recevoir leen euh, wala ñu marche ñëw ba buntu ministère de l'intérieur pour déposer mémorandum ministre bi génn rencontrer leen et j'aimerais souligner la différence aujourd'hui que les gens peuvent brandir c'est que qu'ils qu n'attendent plus rien parce que arrêté bi c'est nul et non avenu foog naa cour constitutionnelle euh, cour suprême kase na ko nee na arrêté bi baaxul léegi nag jaay doole moo fi am mais arrêté bi cour constitutionnelle mu nga xam ni cour suprême moo nekk ci kaw a kaw nee na arrêté bi euh, baaxatul arrêté bi nañ ko dindi donc loolu c'est au-dessus euh, de quelques décisions préfectorales wala d'un ministre ou de la police tey bëgg marché dem en ville nañ xam ni la légalité leur permet de, de marcher l'arrêté n'existe plus l'arrêté n'existe plus oui du point de vue juridique d'accord tey gis nañu maître Ablaye Wade mm -hmm. 12 ans la def ci pouvoir bi am 6 premiers ministres mm -hmm. Senghor mm -hmm. 19 ans deux premiers ministres mhm. Abdou Diouf presque 25 ans deux premiers ministres Macky Sall 7 ans mhm. naka ngeen mën a expliquer la convivialité avec maître Ablaye Wade parce que yow mi nekk ak moom. comment je peux expliquer. sa convivialité. ah oui Ablaye Wade da dafa c'est très difficile. voilà doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg. xam nga comparé nag euh, régime yi ko jiitu. Euh, avec tout le respect que je dois à tout le monde. mais c'est pas pareil il suffit de regarder le nombre de réalisations. comme il disait quand il était au pouvoir. je une course contre la montre. loolu la doon wax. Euh, donc man boo leen ma mënee citer ay réalisation yoo xamante ni mën nañ ko citer trois yoo xamante cent 1960 à deux mille lañ ko fi def boo xam ne du tubaab bi moo ko def euh, plus de trois ma xam ni mbër nga man de bu recherché naa j'ai fait des recherches gisuma ko donc bokkuñu. bokkuñu ni ñuy liggéeyee. bokkuñu également nu ñuy utiliser les ressources humaines parce que avec Abdoulaye Wade moom euh, dégg naa sax ba mu faloo daf ko wax ministre yi ne leen wax leen ko sax seen soxna yi de amatul repos n'importe quelle heure je peux vous appeler pour un dossier donc effectivement c'est pas la même chose euh, bokkuñu nu ñuy liggéeyee bokkuñu également euh, nu ñuy nu le rythme de travail n'est pas le même. que loolu mooy. et également le degré de satisfaction n'est pas le même. c'est pas la même chose aujourd'hui si tu fais des routes bicouche nga xam ne moom moo fi amoon bicouche lay doon euh, boo ci jaaree 6 mois avec des routes euh, de densité de plus de dix centimètres bokkul eh, est-ce la raison ou manque de confiance ba tax muy changé soo xoolee changé na six premiers ministres soo xoolee Ablaye Wade moo ëpp ay numéro 2 en passant par Feu Boubacar Sall mhm. en passant par Serigne Diop Sadakhta mhm. en passant par Ousmane Ngom en passant par Idrissa Seck en passant par Macky Sall en passant par Souleymane Ndéné Ndiaye Souleymane Ndéné Ndiaye n'a jamais été son numéro 2. Hmm. n'a jamais été son numéro 2 alors loolu moom histoire ñëpp xam nañ ko képp ku fekkee quand même avant 2000 xam nga lu tax lu indi euh, tey jii le départ de beaucoup de ces gens-là de numéro 2 j'aimerais rappeler que quand il faisait le manifeste des 200 boobu gul parti euh, ba ñu xamee ni dañu ba ko Senghor yëgee 200 euh, yi ñëpp a daw xaw ma 3 ou quatre ñoo ca des ca manifeste bi ba ñuy dem congrès 76 li indi tey ji euh, ñu naan PDS sax xëy na am na baati ndax xaalis ba def congrès ba bokk na ci xaalis Gaynde ma ndaxte ba 76 ña waroon togg sax ak ña waroon organiser congrès ba ba veyu congrès bi lañ leen PS jël yóbbu leen 78 on a eu plus de 20 euh, députés il me semble 20 députés deseetuñu pratiquement moins de 10, six députés. Il faut que je vérifie bien les chiffres pour ne pas me tromper. non, nous les avons régime socialiste. Donc les numéros 2, Colin Boumounyoué, les numéros 2 étaient systématiquement euh, recrutés ou bien dañ leen doon utiliser pour combattre le parti démocratique sénégalais histoire la lay wax euh, li indi woon nag euh, loolu moo indi congrès bu may doole yi Ablaye Wade am tey ñu naan oui il constate que concentre de pouvoir ndax Jean Collin nag euh, jëm si yàlla Jean Collin ku sonnaloon torop euh, Abdoulaye Wade la et à l'époque lan moo xew dañu xëy suba ñu daal di woote ne dañ nangu nañ euh, récépissé PDS léegi Abdoulaye Wade dootu secrétaire oto yi mu jëndoon yëpp nangu nañ ko ko international libéral boo xam ne Abdoulaye Abdoulaye Wade c'est le premier parti africain bu fa siégé ñu dindi fa turam yónni l' état yónni des gens les numéro 2 du PDS ñu ànd ak groupe dem international libéral ne Ablaye Wade la ñuy dàq ñu ne dañuy dàq Ablaye wadd PDS fa la amee congrès bu mag boobu congrès boo xamante ni liy génn ci nit kenn xamul lan la ci la ñu def congrès ne ko désormais comme dañu sonn ci numéro 2 yoo xamante ni régime état dogul da di yóbbu wala ñuy xëccoog yow récépissé ak bien wu PDS yoo xamante ni yow yaa ko liggéey jënd ko pour ñun militants yi léegi dañu bëgg nga jël concentré pouvoir yi yow rek nga mun a engagé parti bi parce que day permettre ñu sécuriser le parti démocratique sénégalais ba nga xamante ni kenn du mën a xëy suba jël récépissé bi dem jox ko Abdou Diouf wala jaay ko euh, keneen. loolu nag itam gis naa ni amaat na njëriñ torop ci bu ñu ñëwee ci nguur ñëwaatee ci opposition si nguuru Macky Sall parce que man ma conviction personnelle mooy xëy na bu amul woon tous ces pouvoirs euh, bu concentré wul woon nekk le seul à pouvoir signer au nom du parti foog naa ni tey ji jaay nañ ñu point et pied lié. d'accord tey madame Nafissatou Diallo théoriquement. Père Wade à 100 ans. a ah combien. 100 ans. théoriquement laa wax. Mhm. parce que soo gisee ma wax loolu. parce que man maa ko dégg mu ne jàppoon na ci geenu fasu sëñ Touba. Idrissa Seck moo wax loolu. waaw moo ko waxoon ne Ablaye Wade jàpp moom laa wax maa ko dégg. Mhm. te euh, sëñ Touba mi ngi nelaw 1926. Mhm. te nit ki balaa ngay fàttaliku xanaa di am 5 ans. la théoriquement laa wax. mais mais joxuma eh, approximatif. Mhm. Ablaye Wade am na 100 ans yéen tey en tant que jeune naka ngeen ko mën a leen bàyyi muy def politique ba tey ji ndaxte léegi léegi nee nga moom mooy gérer parti démocratique sénégalais. waaw ma bëgg wax rek ni bu amee cinquante ans itam li muy faral di wax nee na moom amul mentalité il n'a pas le complexe de lage ma ni ko man ma d'accord ak moom boo xoolee les grands intellectuels benn âge bu ñu bindee leur plus grande production ñu am ci fierté loolu âge bu mu am na am 150 ans ah. waaye tey nañ ko mën a utiliser. Euh, ndax ku amoon Ablaye Wade sa parti da ngay pooj dangay fecc da ngay sabaru dangay ngay tànn béer chaque jour ndax expérience am ax lu mu ñuy jëriñ ñun xam nañ ko waxuñu Ablaye Wade déedéet pour mu dem xeex ca mbedd ma waxuñu ko leneen waaye ñun soxla nañ ko Euh, pour tey ji mu gunge ñu ba keroog ñuy dem ci congrès boo xamante ni dina def un nouveau secrétaire général national donc ñun ñu ngi ko soxla bu baax a baax a baax te balaa nga koy xam rek démb la ci mujj rek démb rek am na problème bu lëj boo xamante ni ci si lu ñu jëm la ñun ñëpp on est à waaye ba ñu ñëwee en un temps un mouvement dafa trouver solution kooku donc expérience am ñu koy jëriñoo alhamdulilah di ñaan yàlla yokk ko mu am 200 ans euh, bàyyi ko fi ñu mën di jëriñoo li mu xam euh, expérience am Euh, carnet d'adresse am ak lépp loo xamante ni mi ngi ñu koy jëriñ ñun parti démocratique sénégalais. d'accord tey gis nañu actualité oblige. Mhm. coronavirus muy benn feebar bu bees boo xamante ni juddu na fi jógee Chine. Mhm. am fukki étudiants ak ñaar maanaam douze étudiants yu nekk foofu. Mhm. ñu war leen rapatrier Sénégal le président nee na mënuñu leen indi ñu gis tey pose première pierre. si stade olympique à cent cinquante milliards. Mhm. tey ban analyse nga may defal ci ñaar yooyu. man euh, wax boobu moom euh, je suis désolée du ma ci tax wax en tant que parti démocratique sénégalais je parle en tant que mère en tant que sœur daf ma choqué euh, Tange ba ma ko déggee dama nekk ak sama ay xarit ñu wax ko ma ni leen non lii man maa gën a contre Séné Macky Sall Sénégal d'accord maak moom mais lii waxu ko il m'a fallu ma dem vérifier ko ci. Euh, réseaux sociaux yi ba xool vidéo bi ba dégg ko sama nopp pour mun ko gëm euh, lu dooy waar la parce que c'est le dernier rempart le président de la République est le dernier rempart pour tout Sénégalais qu'il soit ici wala de la diaspora ma bëgg laaj rek euh, Tange tey jii aéroport AIBD boo fa demee gisoo fa ñu def fa benn lieu boo xamante ni en fait une zone boo xamante ni day permettre ñu vérifier ndax nit ki amee na feebar euh, coronavirus ou pas mhm. ah boo yaa jógee Chine yàggul ci période boobu wala genre yooyu wala nga jaar zone boobu on vérifie ndax yow amoo coronavirus bi mhm. ah mais mais ma laaj Tange loolu lu mu fay jëriñ bu fekkee sénégalais dafa ñëw am coronavirus ñu vérifier ko foofu loo koy def da nga koy sànni géej ah tu es obligé de le traité moo tax ñun ñu wax ni loolu nit humainement mën nañ leen jëli parce que boo demee tey Mauritanie di jëli ay ressortissants wa nga gis euh, tey jii euh, Algérie moo indaale les Tunisiens yi nekk Wuhan. Euh, euh, yeneen dëkk yëpp daal gis nga dëkk yu bëre di dem di jëli seen ay ressortissants ñun Maroc ak ni ñu mel ak Maroc sax Maroc teg na ay avion jëli ay ressortissants wam même bu fekkoon ni problème de moyen la te man gëw ma ni problème de moyen la loolu gëmuma ko pour man c'est c'est euh, dañu koy dañ koy naxee nit ñi ndax ça coûte pas cher de faire un, de prendre un avion avion médicalisé du avion boo xam ne da nga koy jënd ah, médicalisé c'est toi qui le médicalisé def ci Euh, le nécessaire pour la quarantaine dem jëli sa ay nit indi leen dem xool foo xamante ni mën ngeen fa def zone de quarantaine en rappelant nous avons les meilleurs professeurs xam nañ loolu Ebola gënoon métti euh, euh, dañu bi ñu amee fii malade dañ ko def quarantaine faj ko ba mu wér c'est-à-dire mënuñu bàyyi ñooñu foofu nga xamante ni ville fantôme la nee nañ eau de javel boo xamante ni moom la ñuy sangoo sax bu ñu jógee ci mbedd mi amatuñ ko maanaam duñ ko gisati loolu moom man daal maa ngi ñaan Euh, Macky Sall solennellement mu xool lu mu mën a def au maximum pour jëlee xale yi quitte à demander l'aide euh, par exemple du Maroc qui est un pays ami ou même tey jii moom il est très ami apparemment avec les Français à qui il donne tout euh, xëy na boo laajee Macron xaritam dina ko utal dimbale pour ñu indiwaat suñu frère yooyu nekk foofu ndax seen yaay yi jaaxle nañ te nag ma bëggu terminer foofu ñoo ñu dem demoon jàngi donc jàng la ñu uti woon xam-xam pour ñëw jëriñ seen réew li fekk leen fa nañ leen sauver def leen en quarantaine ba mu leer ñu nii te d'ailleurs euh, les recherches de plus en plus yi ñu ngi wax ni dëkk yu tàng jër yi y a moins de chances pour coronavirus de, de développer wu ci biir yaram yi. d'accord on n'a pas les moyens et on peut investir aujourd'hui milliards xaw ma bor la xaw ma dette la pour benn stade olympique à Diamniadio. mais looloo alors que Dakar Arena ngi ne la benn yoon lañ fa football. looloo tax ma ni la man gëmuma moyen. ni faute de moyens la pour moi c'est une un manque de volonté tout simplement euh, lii ñu bëgg investir également bombe social bi UCAD di tàkk chaque jour man je prône dama bokk ci ñu gëm ni UCAD ci boppam moo nekkatul zone bu viable euh, dëkkuwaay bu viable pour les étudiants yi parce que bu ñu buggee jàng ils ont droit le droit d'avoir une meilleure qualité pour mun a jàng ku nekk am sa chambre universitaire loolu nag man ma xalaat ni ñu jëmoon ji génnee UCAD ci boppam pas que ñu ñu ubbi université bu bees mais UCAD ci boppam ñu décentraliser ko def fa ay navette mu jege banlieue bi également euh, def fa euh, aménagement yoo xamante ne étudiants yi mën nañ fa toog comme à l'étranger euh, dans les cités universitaires à l'étranger ak les les les les universités nga xam ni mën nga fa toog une semaine doo génn sa sa résidence universitaire wala campus bi loolu wax nañ ko mun a def par exemple moo a gënal man ñuy def stade bi xaw ma ñaata milliards loolu itam lu ñu war a la Euh, à mon sens. parce que man mënu ma gëm ni stade mën na coûter loolu. d' accord mhm. tey PDS nga nekk. yaa ngi ci mhm. opposition. Mhm. Bamba Fall maa ko dégg samay nopp mu wax. nee na Sénégal amatul opposition. ndaxte opposition ñi ñuy wax opposition ñii ñi ngi dem seeti Macky Sall. ñu seetiwul Macky Sall ñi ngi yëbbante ndaw. ñu yëbbantewul ndaw ndaw teraanga Macky Sall mi ngi jógee ci Macky Sall di ñëw ci ñoom. looy wax ci loolu. waaw euh, man waxuma non ah. il est libre de le dire et de le croire benn côté itam man am na point yoo xamante ni d'accord naa ci moom leneen li mooy itam ku nekk ku wéet xam sa bopp également man gëwuma ni ne bu ñu nee amatuñu opposition euh, dëgg la man li ma gëm mooy opposition bi euh, defuñu bloc loolu gëm naa ko loolu moom buñ ko waxee gëm naa ko mais man dama gëm ni euh, parti opposition mu ngi fi ba tey PDS ci la bokk d'accord donc mu doon mbégte ak bànneex ma dalal la tey ci sama fauteuil magique mu doon madame Nafissatou Diallo di secretaire national chargé des réseaux sociaux et de la communication du secretaire général national du PDS li tax ma tànn nag c'est par sa rigueur par sa expérience ak sa expertise ndaxte dama la seetaan déglu la dégluwaat la ma xam ne ni que jamono ji fu Sénégal toll soxla nañu koo xamante ni day gindi suñuy bët leeral ñi ci langue politique bi nu mu demee loolu moo taxoon ma dalal la fii ma am ci mbégte ak contentement di la remercier bu baax a baax di la ñaanal yàlla may la wér may la kàttan ba nga eggalee sa combat tey volonté bi nga am ak ambition bi nga am engagement bi nga am détermination bi nga am ci PDS yàlla mottilil la sa yéene foofu Karim Wade bi nga bëgg mu ñëw Sénégal yàlla may leen ndam ba ngeen indiwaat ko Sénégal ba ñu jëm ci kanam man plaisir laa ci amoon ndaxte posé wu ma benn condition ça a été très facile tu as été joignable benn yoon laa woo envoyé message nga tontu ma ma xëy woo la nga jël ma ñu programme émission bi donc am naa ci mbégte am ci contentement bu baax a baax di la remercier di la féliciter di ñaanal aussi suñu maam Abdoulaye Wade yàlla may ko wér bàyyi ko suñu kanam mm. bàyyi ko suñu kanam lu yàgg-yàgg man nag sama kër taamu naa ku fi ñëw dama lay teral donc doo fi ñëw ba dem duma la teral mm. léegi-léegi nag ubbi woon nga pañe bi nekk à ta droite muy sa ndeyjoor mm. pañe bi nekk à ta gauche am naa fa aussi ay bons yoo xamante ni dama bëgg nga yëkkati pañe bi nekk à ta gauche yëkkatil nga yëngal ok tànn su la neexee am na ay bons de soins yu ci nekk am na ay bons d'achat yu ci nekk am na ay bons de restauration yu ci nekk boo ci tànn rek moom laa lay may ubbil ñu xool. bon de, de de soins d'une valeur de vingt mille à l'institut Amarcy le stylisme ongulaire Ouest Foire en face hôtel VDN. kon jàppale ni célébrité en ligne moo la may bon d'une valeur de vingt mille francs foofu ca institut Amarsi muy stylisme ongulaire di def pédicure manucure nekk foofu ca Ouest jàkkaarlook jàkkaarloog hôtel Védène saa yu la neexee demal foofu ñu defal la soin boo bëgg muy stylisme ongulaire di Amarsi di suñu partenaire ci suñu émission célébrité en ligne comme je le dis souvent ku bëgg sa produit célèbre indi ko célébrité en ligne ndaxte ay célébrité ñoo fii daje ay ndaanaan ñoo fiy daje te lu ñu laal yàlla teg ci loxo kon mooy bon boobu laa la may mais du ma la bàyyee loolu kese fi nga jàkkaar lool am na pañe bu fa nekk waaw ah waa Tange xanaa dag may invité waat ñu lay jox ay cadeau nii léegi ubbil pañe bi pour wax la ni que fii lépp réalité la mhm. jëlal papier bu fa nekk ubbi liir li ci nekk 2STV, célébrité en ligne, bon cadeau. Euh, célébrité en ligne de bon pour soin à Amarcy encore. Euh, mi ngi nii mooy bon wu vingt mille francs. muy sabon moom ngay yóbbu soo demee ñu defal la lépp li nga bëgg donc loolu laa la tëralee fii ma bàyyi la nga tàggatoo ak téléspectateurs yi. merci beaucoup Tange li nga wax sa wax rafet na euh, ma lay remercier di wax ni sama wareef laa def parce que dama gëm ne àdduna ñun ñëpp nous sommes des compatriotes. te ñiy liggéey ci communication ak ci télé ci journaliste ak ñun politique ñun ñoo war a ànd mën a waxtaan en toute sincérité bañ a def langue de bois pour dimbale sénégalais yi ku nekk nag mën nga am sa conviction euh, mais itam ñu mën a wax ak ñoom wax leen itam man lii laa gëm euh, lii moo tax ma gëm ko euh, keneen mën a def la pareil te yéen yéen ñu koy yombalal pour ñu atteindre donc les citoyens ma lay remercier également ci sa humilité sa gentillesse parce que itam nit ki noo ko contacter rek ak noo ko yaatalee noonu lay ñëwee ma lay wax nag temps xanaa danga may invité waat parce que ñëw ñu jox la ay cadeau émission maa ngi koy soog a gis maa ngi la ci remercier bu baax. c'est la magie de la wax ni nag soxla naa ko parce que Ablaye Wade bu tànk mi ngi fi sama tànk yi moom metti mi ngi metti bu baax a baax a baax foog ma dem defi pédicure euh, ça va me permettre defaraat tànk yi. donc lu ma soxla la ndax président Abdoulaye waat bu fi nekkee moom ñun dañuy daw rek du ñu du ñu noppalaku Euh, ma leen di remercier bu baax di remercier 2STV di leen encourager concept émission bi di ko wax c'est magnifique euh, may wax nag également ñu koy jëlaat itam ñu éviter ku ne na créer concept bu mel nii daal day gën a tax paysage audio audiovisuel bi am benn niveau boo xamante ni dina ko atteindre euh, ma lay remercier di remercier 2STV di féliciter ñëpp le l'équipe toute l'équipe qui est la et di la wax que je suis à la disposition à votre disposition à chaque fois que de besoin merci infiniment. merci beaucoup noonu la tàggatoo donc di leen jox dig daje à la prochaine fois avec un autre numéro sur votre fauteuil magique dans Célébrité en ligne.